waa sama gars yi ñu ngi nii ah si stade Mbao tey nag kan ma fi war a ñëw le golden boy Faramaren Wally Ballago Seck moo war a ñëw fii tey jii wuy se waa Mbao mën naa ne semaine bii daal mën naa ne gars yi ni ñu ko doon waajalee yombul yombul yombul yombul moo tax tey la bés bi ah. préparé ñu ngi ko ci préparé ànd ci ak euh, Gaston production ànd ci ak sunu frère Yann production fas yéene bégal la jeunesse de Mbao ànd ci ak ki nga xam ne mooy le maire de Mbao Abdoulaye Pouye Obama donc tey aussi mu tombe aussi ak lancement wu li mooy campagne électorale bi ñu gis ne jeunesse bi ci suba ba tey ñu ngi yëngal jàpp ne tey jii le maire Obama dafa war a ñëw fii wuy si xaritam frère doomu ndeyam Wally Seck le grand Faramareen donc ki nga xam ne moom moo bëgg mbaaw mbaaw bëgg ko te tey c'est une deuxième occasion ñu wan ne maali Seck waa mbaaw ni nga leen bëggee ñun noonu lañ la bëggee. waaw bëggoon nañ xam aussi tamit wàllu disposition yi ak wàllu sécurité bi nan ngeen nar a taxawoo ñi nga xamante ne ñoo war a ñëw fii tey ji waaw mais ku xam ñun waa mbaaw xam ne dañoo mën bés ndax ci dolli nag man Ndiawar Sow dama wax toujours ne Ablaye Pouy le maire de mbaaw du ma gën a gore parce que nag ki nga xam ne moom bu organiser lu mu ndaw ndaw yow la ci wóolu lu mu rëy rëy rëy xeebu la ci donc da ngay jël toutes les dispositions nécessaires boo xoolee toute la direction technique de la mairie ils sont là le staff technique de Faramaren est là le staff de Yann Production est là le staff de Gaston Mbengue ñi nga xam ne ñoom ñooy Gaston Production par rapport ak seen taxawaay mais aussi di remercier le commande le commissaire Guissé mooy commissaire sapeur pompier euh, commissaire police bi nga xam ne mooy police bu bees bi mu jël toutes les dispositions mën naa ne li fi amoon ci sécurité ci premier Wally Seck bi on a le triple de la sécurité donc dinañ jalonné fii ba génn mbaaw nga xam ne bu ñu tasee ku nekk di nga ñibbi si jàmm ak xel mu dal ak xel mu tey beneen bi aussi mooy les euh, la brigade des sapeurs pompiers avec vraiment donc euh, le commandant Ndour donc la judant bi nga xam ne moom mooy la l'adjudant Diallo donc le sergent Diallo moom aussi ñu ngi koy remercier ci équipe am ak disposition yi nga xam ne moom la jël pour vraiment réussir événement bi en tout cas en résumé ñu ngi wax ne daal ñu ngi am contentement trop lool contentement bu baax ci taxaw bi nga xam ne moom lañ taxaw ci organisation bi parce que c'est une fête de la jeunesse et une fête de la jeunesse ànd ci ak le maire Abdoulaye sama gars yéen a ko déggoon lii sama kilifa gi wax léegi nii fii si RSTV lay xewee ba tey ah ñu dem xooli suñu beneen naataango pour préparation li nga xamante ne mooy journée tey bii nii Wally Seck nar ko def fii nii si Esat Mbao merci beaucoup.